léegi malaayka yi suñ ñëwee dañ koy yee ne ko kan mooy sa borom mhm. mu tontu wala mu faussé kan mooy sa yonent mu tontu wala mu faussé lan mooy sa téere mu tontu wala mu faussé lan mooy sa xibla mu tontu wala mu faussé et puis bu réussiré examen boobu ñu daal di ko indil jëfam yu rafet mu meloo benn meloo jëmm ju rafet mu ñëw toog di ko wéttali ba bis penc bu fekkee échoué na ci examen boobu malaayika yi dañ koy dóor benn marto boo xamante ne marto bi ñu ngi ko jëlee ah. safara te moo gën a diis mbooleem bombe atomique yoo gis ni nag ay ay mégatonne mégatonne safara lañ koy dóor bu ñu ko dóoree ñu ne dafay dugg ba ci suufu juróom-ñaar génnaat ñu dóoraat mu duggaat ba ci suufu juróom-ñaar génnaat ñu dóoraat mu dugg ba ci suufu juróom-ñaar deebaat génnaat léegi nag bu pare ñu doog ko indil jëfam yu ñaaw yi mu doon def ci kaw suuf mu meloo melukaanu jëmm ju ñaaw bu am xet gu ñaaw mu ñëw toog di ko wéttale ba bis pénc première question première question tu bëgg que nga tontu ci. waaw. bàmmeel bi ñuy nit ñi. bu mhm. mètres ou 1 mètre cinquante wala 3 mètres lay doon. Mhm. underground tabax bunker atomique yi nga président dañ koy am Hassan Nasrallah rek bunker bi mu mètres sous terre actuellement Iran seen missile yi am na bunker kii souterrain yoo xamante ne 500 mètres la sous terre moo gën a moo gën a xóot bàmmeel yi kon. Mhm. donc bu doon bàmmeel yi mooy àllaaxira wala bàmmeel yi mooy barsàq kon bunker bi moom weesu nañu barsàq. Mhm. ñaata bàmmeel ñoom ñooy suuleeku moo xam ay mbër ñoo dem pour suul fa bàmm suul fa gàllaaj moo xam bàmmeel bi dafa màbb moo xam taw bi moo ko kii ndax mës nga gis Cheikh Ahmed benn bàmmeel bu suuleeku. nga gis néew ba fa tëddoon changé tëddaay wala mu changé toogaay. Mhm. su dee am na wax ma. non amut. amul benn bàmmeel. Mhm. bu mos sa sundeeku ñu fekk néew ba changé toogaay wala ñu fekk ko mu toog wala ñu fekk ko mu tëdd mu changé tëddaay. ni ñu ko tëralee woon noonu lañ koy fekkee bu fekkee ku suuf di lekk la ñu fekk fa ay yax bu fekkee ku suuf du lekk la ñu fekk fa ñu ko suulee woon léegi. bu fekkee dañu ne buñ la dugalee ci bàmmeel bàmmeel bi da day tànc Cheikh Ahmed ñi nga xamante ne dañuy dee ci lakk wala ci bombardement yi gars yi di def nii nga xam ne dañuy néew bi dafay carbonisé wu. wala ñi nga xamante ne nii comme indien yeeg di lakk seen néew yi ba ne ba nekk doom ñu dugal leen ci benn pot teg leen ñooñu naka lañ leen di mbugalee mbugalu bàmmeel naka lañ leen di tàncee. mais est-ce loolu laajul. laajul beneen fosa ngi dégg-dégg ne boo xasee dee ba ruux bi dem jëmm ji foo munti nekk yàlla dalay jàpp téye la def defal la bagage quoi est du loolu leen bëgg a wax. ñoom li ñu wax wute nag loolu ñoom dañ ne buñ la suulee dañ lay delloo sil sa ruuxu malaayka yi ñëw ci bàmmeel bi. man nag dama leen bëggoon laaj bu fekkee suuluñ la nag. waaw loolu laa bëgg a wax léegi bu fekkee nit ki dafa dee ci géej comme ñuy dee ci barsàq barsàq yi jën yi lekk leen ñooñu amul bàmmeel naka di kiyee wala ñuy dee ci àll bi njaay àll yi lekk leen yoon gaynde yeeg kii yi ñooñu nak lañ leen di defalee mbugal en euh bu fekkee ne comme mumi yi ñi def ci firawna mumi égyptien yi nga xam amuñu bamel dañ leen di fi ñooñu nak lañ leen di tanché ban malaika moy ñëw ndax mësu nañoo gis malaika bu ñew dekkil leen tanché leen ak yu mel hmm, kon de kon if that is the case kon firawna mbugal ba mel parce que kenn mbugalu ko mu nga tedd ben place rek ah chinois yi ak indien yi amul mbugalu bàmmeel tamit bëri nañ dañuy lakk seen néew yi incinéré leen def leen ci kaas wala ci benn pot teg leen foofu seen biir bureau yi wala seen néeg yi bëri nañ de. waa salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum. waa bi ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax a baax. di ñëw rek di leeral ci vidéo bi. ndax ñu dégg ci ay nit yoo xam ni wax dëgg yàlla gis nañ ci ñoom ñàkk ragal yàlla. ak ñàkk waxee xam-xam ak weddi sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga dañuy yegg ci bañ njàngale yonent yàlla muhammad sallam ba jàpp ni bu ñuy xeex ay nit mën nañu xeexee loolu mën tax toujours dañuy weeru ci ñàkk xam-xam ndax lii mu wax alxuraan moo ko weddi léegi nag kan la ciy waxtaanal koo xam ni moo taxawoon wax ni alxuraan ay taaxuraan la pour ngeen xam rek dayoo ñii seen pas-pas ci diine lan la est-ce que dëgg moo leen tax a jóg wala fowee diine est-ce que njub moo leen tax a jóg wala sikki sàkkaloo jullit ñi kan lay waxal xaw ma nan siise boo xam ni fii la wax musiba yoo xam ni kenn mën la ko wax ci diine taxaw di taxe alxuraan lu ko neex wan ni gëmu ko sax faf kon kooku kan mooy am ragal yàlla ci diine di laay fa kooku na ngay wax ci diine muy benn Cheikh Baye Niass la xaw ma nee na mbugalum bàmmeel amul alxuraan waxu ko ndax aay bi mu layee mooy yaa waylana man ba'athana min marqadina haza taskare ñeel nanu yéefar yi waxoon ni ana kan moo ñu dekkil suñu nelaw yi mu ne kon gars dañuy nelaw kon mbugal bàmmeel amul lii xam nga ni njàngale mu teera teer la ci wàllu xam-xam bude ni nii la ñuy gëmee alxuraan rek léppi alxuraan na ko weddi ndax alxuraan leeg gis aaya boo xam ne gis benn aaya da ngay yaakaar yi dañoo waroo fekk déedéet dafay laaj jéggin dafay laaj jéggin suñu borom day wax ni ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha munoo gindi ko neex waaye yàlla mooy gindi ko neex yàlla waxaat ci même alxuraan ni innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow da ngay gindi jëme si yoon bu jub bi yow mënoo gindi ku la neex yow da ngay gindi ni nga koy déggee ndax waroo la kon alquran foog nga dégg alquran xam dégginu alquranu karim faw nga dëppale ko njàngale yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga mën a comprendre alquranu karim waaye lii muy jël nii di dóor fi dóor fii naan fii ne fii nee na alxuraan la bu ko si jëloon léegi léegi mu lëndal ci ay doomu aadama léegi léegi léegi ji in leen jiixi jaaxale alxuraan day wax di waroon subhanallah fekk demeewut noonu kon nañ ko leeral incha allah ba wan ni waa ji day font caaxaankat la dëgg taxu koo jóg benn mu xam bëgg a lëntal wala mu ñàkk xam war dem jàng ji muy benn suñu borom dafa wax ni wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaata bal ahyaun walakin la yashurun yàlla mu ne bu leen wax ni ñu rey ci yoonu yàlla way dee lañu yàlla déedéet deewuñu ñu ngi dund waaye yéen a yëgul seen dund allahu akbar waaye ñooñu yegguñu barsax yegguñu man xiyam de te yàlla nee na ñooñu ñu ngi dund te waa ji nee na dund barsax amul nelaw moo fa am te suñu borom nee na ñu ñu rey ci yoonu yàlla bu leen yaakaar yi dañoo dee dee nag buñ ko waxee mooy yaram bu tàggalikoog ruuxu définitivement waaye yàlla wan na ne yaram boobule ak ruuba am na communication dund ba tey waaye nag suñu borom moo xam nu muy demee ndax yàlla daf ñu digal ñun ñu gëm xaybu allazina yuminuuna bil xaybi ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa gëm kumpa dafa bokk ci sart si gëm yàlla waa ji nag kumpa boobu la commencé weddi muy doy ولا تقولوا بلن وخ لمن يقتل في سبيل الله كيف كو خامي راي نانكو سي يونو يالا امواتان نين نيو دي ديت يالني بال لي ام احياء نيغ دوندو بني وخ دوندو كين كو وخ رو كسه بني وخ دوندو كين كو وخ يارام كسه رو يارام اك روح لاي وخ دوندو كون يالا مو خام نان لا كومونيكي يارام مك روجي دوندو واي دنجكو گم يالا من ولكن لا تسورون لي ام موي يين يين دوندو كون يالا خامل ني نيغ نيك سي ادنا نيو خول يارام با gis yaram bu fanax ay yax loolu la gis ndax ñu ngi ci àdduna ñun ndax waaja mi ngi ci beneen monde waaye li am mooy waajaa ngi dund ñun ñoo yëgul dund gi walakin li am mooy yéen yéen a yëgul dund gi allahu akbar mbokk yi li ko yàlla ne ne ci yoonu yàlla denc ko yàlla mu bu leen jàpp ne de mi ngi suuf rek mbiram jeex na déedéet yàlla mu ne kooku ma ngay dund ñun ñoo dundam te boo demoon gas bàmmeelam ay yax ngay gis waaye yàlla mi ngi mi ngi waajaa ngay dund ndax dund dañ ko adressé ruu kese kallaa ndax dund dañ ko adressé yaram kese kallaa dund ñu ko adressé yaram ak ruuxu ba ñuy wax dund alxayaat kon nag yàlla xam naka lay communiqué yaram boog muy dund loolu xëy bu ne dañ koy gëm allazina yuminuuna bil xaybi ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa kon waa ji kumpa la weddi muy benn aay ba mu sukkandiku nag mooy bu ñu dekkeelee yowmal xiyaam ba yéeféeri ni yaa waylana toskare ñeel nanu man baasana min marqadina haada ana kan moo ñu yee suñu nelaw yi mu ne kon gars yi dañuy nelaw moo tax bu ñu bëggee dégg alxuraan seppi njàngale yonent yàlla muhammad ci wedd yàlla ñu yóbbu ndax kooku la yàlla yónni kooku lañ yàlla royloo kooku la yàlla wax li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim ngir nga leen ni wàcce ci ñoom yàlla dafa wax ci alxuraan ni ونفق في السور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا ينظروا يلا من أبني ولا يبوف نبي فصائق لا يلا إفليزة نيب بينك دان لكما من في السماء نك أثمان ومن في الأرض نيب نك سسوف يلا من إلا من شاء الله روك لم يخي الله moo ci dul bokk yàlla xam lu mu doon waaye xool li yàlla wax summa nufiqa fii uxra summa la yàlla utilisé après ñu ofaat summa summa buñ ko waxee li taraaqi distance la moo tax boo demee ci hadis boo xam ni abu hurayra moo ko solo mu ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama nee na diggante ñaari ëf yooyu arbauna ñeen fukki at moo ci dox quarante ans kon nit ñi bu yàlla nammee lépp ne tekk te kaaral day wax malaaka bi walal bufta bi lekk bu lu nekkoon ci biir suuf di dund ak asamaan di dund lépp ay nekk dana ko ba ba yonentu yàlla Muhammad nee na moom sax da ciy bokk moom allahu la waxee ba mu dekkee damay gis Muusa alayhi salaam te ci aras xaw ma ndax moom daf maa njëkk a dekki wala dafa bokk ñoo xam ne dañoo bokk ci yàlla istisna mooñ yàlla settantal ca dana ko maa boobu leen ab beneen riwaay bi ni wala yàlla da ko attee ca xam ba mu xamoon ca tuuru Sina fa fa xarra Moussa sa yaqa allahu akbar kon yonte bi leeral na xam boobu ban distance lay am mooy distance bi nga xam ne yàlla namm na toog jiir bu gàtt soo koy dekkil jaam yi kon boobaa la lépp di arrêté ñu nekk ci biir bàmmeel yi dund seen bas barzaq dund ak ñu nekk asamaan dund ba mu des borom bi subhanahu wa taala ak lu soob borom bi man yàlla illa man sha allah loolu la neex yàlla yàlla summa summa li faraqi la distance la mooy diggante wal bu njëkk bi ak deuxième wal ba am na distance ku jàng arab xam nga ko yàlla walaat nag yàlla mën a fa isaahum xiyaamu yanzuru gars yi nag dekki seen bàmmeel di xoole kon boobu nag la gars yi dekki seen bàmmeel di xoole ndax wal bu njëkk ba bu ñu walee lépp naan nëram lépp arrêté dañ kon dañuy nekk dans le coma quarante ans boobu la kon bu ñu walaatee ñu dekk lañuy wax man ba asana min marqadina hada ana kan moo ñu dekkil suñu nelaw yi diggante quarante ans boobu la الله اكبر كون بوكي حياه الخبر لو وير لا تب نانكو ليرا ان شاء الله واني واجي والله اسي من ني جاخ نان كون يونت يالله محمد ليرال لا فوفو لي بو ديمي سي سنه دا لا ليرال ديغنت بوبو لي nga xamne ñeppay xam ñeppay nek dans le coma ci lay wax ni man ci lay ximbaliku gis nak yonent yalla musa tay jaras kon digënté bobu la gaay di tok bir yonte bi wax ne diir ba nee na quarante ans la ba nga xam ne lépp dara yëngutul lu soob borom bi subhanahu wa taala maam yàlla rek a fi nekk comme ni fi nekkee woon suñu borom soo koy waxaat malaaka bi walaatal malaaka bi walaat fa isa mu xiyaamu yansuru lépp lu nekkoon dans le coma daal di leen baxal ñett daal di dekki daal la wax ne man ba asana mal xëy naa haza diir bu gàtt googu nag ñu ne woon nërëm yaakaar ni mbir ma jeex na la ñu wax ne ku ñu dekkal suñu nelaw yi kon loolu leer nañu la sunna leeral na ko kon nag mbugalum bàmmeel dafa sax ci alquranu karim yàlla wax na ci aala firawna wannaaru yuraduna alayha guduwan wa asiya wa yowma taqumu saat adxilu aala firawna asad al azab yàlla mu ne njabootu firawna ñu ngeen di gaaral ci safara subaak ngoon kan la ko wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne diggante muhammad sallam ak Moussa ëpp na junni at yàlla ni ko njabootu fi aw na ñu ngi leen di gaaral ci safara te xoolal di ba ñu génne àdduna ak ba yàlla yónni tal ma sasalama te yàlla mooy ngeen di gaaral safara suba ngoon kañ lay jeex yow ma taqumu saa bis ba ci ba ci taxaw ma ne adxilu ala na dugal leen njabootu firawna asaddal azab fa gën a tar ci mbugal ma kon mbugal ba ñu nekkoon mbugal yow ma xiyam moo ko gën a tar te instant bii fu ñu nekk furul barzaq fu ñu nekk furul barzaq li gën a yéeme mooy demal Égypte da nga gis yaramu firawna ndax di nga ko xool ba gis mbugal léegi boo gisoon mbugal rek kon fi aw na mi ngi àdduna kon yow da gis kon la muy dund dund àdduna lay doon waaye lan ko ñàkk gis mooy newul ci àdduna moo tax ci beneen monde la nekk kon loolu la ñuy wax xaybu jullit bu ko gëmulee rek mooy nekk su jullit jullit bépp fu mu amee pas-pas ak ñàkk gëm xaybu rek bu yeboo mu weddi yàlla tax xam ak doom la yëfir na boo demee ak yennat yennat gaayam yi seen yaram yaa ngi Égypte ñu denc ba léegi yàlla ñu ngi leen di mbugal ñu ngi leen di mbugal te bu tax boo demee xool yaram bi doo gis mbugal mi ndax lan ñoom yaram yooyu ñu ngi ci àdduna mais ñoom en véritable véritablement ñi ngi barsax kon ñoom dund barsax lañuy dund kon doo mën a gis mbugal bis boo gisee mbugal fii ci àdduna rek kon ñoom ñeewtuñu barsax ñu àdduna ndax seen mbiri mu ngi ci àdduna yaa koy gis kon nag lii alxuraanu karim la kon boy weddi da ngay weddi bépp aya bo xamni day wax ci lola nga ñëw leral kon li li ci yàlla wax waye li gëna yomb ci kaw suuf moy li rek da taxul non li du xam-xam li du xam-xam si borom subhanahu wa taala ba muy wax nafiqi ci medina madina dafa ne yoon ci yàlla muhammad sallallahu sa wasallam sanu azibuhum marratayn dina lan mugal ñaari yoon summa yuradduuna ila azabin azim summa la itlie summa après ñaari mbugal yooyu ma delo len ci mbugal mu mu taratar mag yan may mbugal ñaar yoni bismillah nañu ñu leral ko moy nafaqi yi nañ toroxal fi ci aduna buñu dé dañ leen mbugal seen bammel muy ñaari mbugal summa yuraduna après nak bu ñu jógee seen bàmmeel yi ñu yóbbu leen ci bugal mag kon lolu mbugalum bammel la alxuraan saxal nako yalla yàlla ni arada an zikri fa inna lahu maisan danka ونحصره يوم القيامة أعمى يلا من كيف كو خامني دوم مو يوغ سما دوخالين داغا ام دوندو دوي وار تبون لا فانغي يوم الخيام نك داغاي غومبا كون دوندو دوي وار بوبو بوكو لك فانغ يوم الخيام لكن نياتا نيت ньо ويدي يالا سي ادنا في دون دوندو ليك سي باخاي генار ادنا دوغ دوي وار غوغو لا بودي ادنا في لا يالا يوخ فاتي demal ci Inde demal ci dëkk yooyu liñ ci gis ay yéeféer yoo xam ne ay xërëm la ñuy jaamu ñuy ndox la ñuy jaamu ñuy nag la ñuy jaamu waaye ay milliardaire la ñu di dund ci luxe ba xëy génn àdduna ana ma ay sandanka kon yàlla dundug bàmmeel lay wax mooy bu ñu dee seen bàmmeel yi waaye wa naxsuruhu yowmal xiyaamati ama buñ leen dekkilee yowmal xiyaam dañuy gumba kon nga xam ne may sandanka boobu bokkul ak yowmal xiyaam bu dee fii àdduna la bismillah ñaata nit ñoo weddi yàlla dund dund gu nekk ba xëy génn àdduna anam ay san dankaa boobu de suñu borom waxaat ni ci alquranul karim suñu borom waxaat ci alquranul karim mu ne gaa yi nga xam ni malaaka yi ñëw nañ di leen jël si buñ leen faatee lu gaa yi am fa rawxun wa rayxaanun وجنة النعيم فروح وريحان وجنة النعيم dañuy nekk ci yërmande gu yaatu ak kontante ak dund gu teey ba kenn après ñu dugg aljanna allah kon ñooñ ñu faat ci bari yërmande la ñuy nekk ak dund gu teey ak kontante googu ñuy nekk fan la balaa ñoo dugg aljanna fulul barzax فروح ليلا وريحان وجنة النعيم روح نك فابا نكرا فاء الواقية فاء الواقعة في جواب سرد ريحان نكلا واو بنك حرف العطف مي خامني كون نياري اتي بكل كون غاي بو ني فاتو يالا نينا dañ nekk ci yërmande yàlla ak mbégte ak dund gu teey après yu dugg aljanna léegi nag ku faatu fan lay dundee dund gu teey balaa moo dugg aljanna ak yërmande yàlla ak dund gu yaatu ak mbégte fan la koy nekkee budul bar sax ba mu nekk kon alxuraan dafa confirmer xayaatu barsax dafa confirmer mbugalu barsax kon weddi ko nekku da ngay toog rek jàng benn aaya ni liy saxul loolu du xam-xam kon waa ji mu def wax dëgg yàlla li mbir mu doy war la waaw bu ñu waxee xayaatul xabri lañ ca nam mooy barzaq ndax sii borom mi ngi wax ni ki nga xam ni malaaka yi ñu koy jël si te bëggul dem lan lay wax rabbi irjiun la'alli amal saalihan fi ma tarak yàlla delloo ma ci àdduna ma jëf lu baax la nga xam ni bàyyi naa ko يعني كلا إنها كلمة وهو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون لول دي واخ جاي واخ لا رك وايو ويو برزخ دوخس ديغنت أدنى برزخ دوخس ديغنت ادنا تيالنا ثم اماده فاخبره ثم اماده فاخبره كون كوكو لا يلا وخني بو فاتو دنجكاي دنج كون بامل بوبو لنج لم موي برزق اجا وو nañ لك lakk جيل لك jël lekk labal ci géej nañ la suul nañ la bàyyi ci kaw suuf da nga dund xayaatu barzax bu dee xéewal da nga mos xéewalu borom bi bu dee mbugal da nga mos mbugalu borom bi bu dee nit nag dafay natt li nga gis doomu aadama kon dara xewul kon kooku gëmatul xaybu kon kooku xamatul kàttanu borom bi subhanahu wa taala kon mi ngi natt kàttanu borom bi ci kaw kàttanu doom ak comparé ko kàttanu doomu aadama loolu weddi yàlla la ndegam doomu aadama mooy defar benn appareil defar appareil boobu le utal ko batterie nga rot ci batterie bi appareil bi fay wala nga fay appareil bi appareil bi doxatul nga bàyyi ko benn weer ñaari weer ba ñetti weer nga tala appareil bi heure bi nekk ñett du changé kon pourtant fay nga ko de appareil bi doxatul waaye heure baa nga doon fonctionné te nit moo ko defar nit mën a toll ba États-Unis nga nekk fii Sénégal mu woo distance bi dox seen diggante sa appareil sa sonné ba vivre ba daanu ngir yépp jokkale boobu xam ne jokkati na ko ñaari appareils yi te distance bu rëy dox seen diggante yéen ñaar te nit moo ko defar kon kay fa suñu borom subhanahu wa taala mën naa yéeg ruum fa ko neex yaram ba nekk fa mu nekk yàlla jokkale ñaar yooyu la soit mu nekk ci mbugal soit mu nekk ci xéewal kon boo nee gëmoo loolu rek kon da nga ni doomu aadama moo gën a xariñ borom bi subhanahu wa taala kon dafa am loo xam ne saxal ko weddi borom bi subhanahu wa taala la moo tax firnde bi lay wan loolu yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam day wax ni ki nga xam ni laaj nañ ko ba mu tontu tontu yu normal suñu borom danaan yaatal leen ko bàmmeelam madda basarihi ci bëtam yem bu dee bàmmeel gese la xanaa kon moom nangu na armeel bi yëpp yow boo taxawoon ci ab buntu armel bi boo xoolee sama bët dana romb armeel bi yow da romb armel bi kon moom bu fekkee kuñ suuf si bàmmeel kese la bëggalu bàmmeel kese la yor si bàmmeel bàmmeel ba la yem la nekk kon moom buñ ko ubbilee lu yaatu bodam kon nangu nay bàmmeelu jàmbur kon kon nga xam ne jubluwuñ ca pax moomul lañ ca nam mooy barsax loolu alxuraan saxal na ko saxal na ko ci aali firawna ala firawna saxal na ko ci naafeq yi saxal na ko ci jullit bu gëm yàlla bu kii saxal na ko ci yi nga xam ne sahid nañ ci yoonu yàlla wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaata bu leen yaakaar ñu rey ci yoon yàlla way dee lañu bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun li am mooy ñu ngi di wërsëgal ñu ngi dund seen borom ñu ngi di wërsëgal risqu risqu mooy looy looy jëfandikoo di ci am bànneex waa koo xam ne yaram ba fanax na roogaa ngi fale ndax rooga sa day lekk ndax rooga sa day naan ndax rooga sa day bànneexu déedéet te yàlla ni bal ahyaun inda rabbihim yurzaquuna ñoom ñu ngi dund seen borom yéen di wërsëgal yemuñ te de farihina bima ataahum allah min fadli dañoo kontaan ci leen yàlla jox ko ko ñooñu ñi ngi yëg ba kontaan yemuñ ci de wa yastabsiruna billazina lam yalhaqu bihim ñuy dem ba yegg ci di bégal ñi nga xam ni ñi ngi ci àdduna ñëwaguñu li leen di wax mooy allah xawfu alayhim wala hum yaxzanuun bu ñu jàq bu ñu jaaxle ku ku faatoo ñu lay wërsëgal nga kontaan ci wërsëg bi ba yemoo ci wërsëg bi ngay wax naan ñi nga xam ni ñoom nga àndaloon di xeex ci àdd si deewaguñu bu ñu yoon jox bu ñu yaacaaral ndax yaa ngi ci xéewal yow kooku boo nee dund amu fa boo nee xéewal amu fa waa jaa ngay nelaw weddi nga alxaanu karim kon pas-pas bii mooy lu doy war wallahi azim